émission gindeeku dina dalal Dame Ndiaye mi président bu alliance nationale des jeunes pour la santé de la reproduction de la planification familiale dina dalal itam Sira Doumbia di EPS district nord ci seen rajo Afia FM 93.0 bile émission nag alliance nationale des jeunes pour la santé de la reproduction de la planification familiale moo leen koy jagleel ci lëkkaloom ak rajo Afia na ñëpp jóg ñu daan ko mën naa ne ñu daan corona ci la rajo Afia FM di dox mbokk yeeg xarit yi nuyu na leen di leen ziar di leen dalalaat si biir émission gindeeku tey li ñuy waxtaanee moo di euh, impact euh, lii di euh, Covid bi ci SRAG maanaam centre de la reproduction des jeunes et des ados comme ni ngeen ko déggee ci bande annonce bi ñu si ànd ak kuréel goo xamante ni ay ndaw yoo xamante ni dañoo jóg ngir yëngu bu baax ci wàllum SRAG ak wàllum planification familiale tey ñoom lañ fas yéene àndal. si euh, waxtaan bi euh, di ci euh, dalal ay gan yoo xamante ni ñu nekk ci mbir mi lan booba léegi ba corona tero ba tey di ci xeex xeex bu am solo tax tey ji ñu war leen a dalal fas yéene waxtaanee lépp loo xamante ni rek jëm na ci wàllum SRAG wala sax ndaw mi ban taxawaay la war a am ak xeex bi fi mu toll nii ngir coronavirus génn ci réew mi balaa may sori damay jiite ci nuyoo bi ki nga xamante ni moo jiite góor kuréel di sëñ Dame Ndiaye Dame Ndiaye nuyu naa maa ngi lay nuyu soxna si di nuyu également aussi auditrice ak auditeurs yi nga xamante ne ni ñoo ñuy suivre sur la 93 point 0. Mhm. di ko jaajëfal moom Dame Ndiaye keneen ku ñuy dalal moo di euh, Aïcha Kanté madame Touré euh, moom it euh, bokk ci li nga xamante ni moo di projet bii ñu tuddee projet right here right now dina ndikaat ci boobu les projet moom it mu bokk ci kuréel gu tudd Afriyang soxna si Touré waaw soxna si maa ngi lay nuyu. Mhm. maa ngi tudd Aïcha Kanté. Mhm. nekk ci réseau bu ñuy woowee Afriane. ñu mhm. gën ko xam ci réseau africain des adolescents et jeunes. d' accord keneen ki ñu dalal mooy Basirou Samb Basirou sàmm moom acteur communautaire la ci ci mbir mi sëñ bi euh, Basirou Samb ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu auditeurs ak auditrices ci Afia FM. waaye di nuyu képp koo xam ne yaa ngi bàyyi nopp suñu waxtaan bi. di nuyu sama turandoo bi nekk ci technique bi moom tamit. Mm, Basirou Cissé di ko jaajëfal moom it <laughs> wax dëgg yàlla ci taxaw bi nga xamante ne mi ñu koy taxaw saa su ne damay tàmbalee ak euh, dam Ndiaye euh, sëñ bi Ndiaye yow yaay coordonnateur wala yow yaa jiite euh, kuréel gi ñu tuddee alliance nationale pour la santé de la reproduction des jeunes et des adolescents et de la planification familial kuréel gi nga dikkaat tuuti ci lan moo leen tax a jug ak lan moo ko wëndu. jërëjëf soxna si euh, alliance nationale des jeunes pour la santé de la reproduction et la planification familiale. Mm-hmm. dafa nekk benn kuréel ba nga xamante ni nii ay ndaw ñoom ñoo ko taxawal depuis 2015. Mm-hmm. alors et ñoom euh, li taxoon ñu taxawal ko moom mooy euh, dañu jàppoon ne tey jii mënuñu apporter benn réponse sur les problématiques des jeunes sans pour autant que jeune yi seen bopp. Mm-hmm. ñu jóg gàddul xeex bi seen bopp. looloo waraloon ñu taxawal ko et que suñu domaine d'intervention nekk lépp luy problématique de santé publique. ba nga xamante ne nii day toucher adolescents et jeunes yi. Mm-hmm. adolescents et jeunes yi nag buñ ko waxee selon lomes moom mooy ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo âgé de de dix vingt quatre ans. donc ñoom ñoo ñu ñoo nekk suñu cible. Mm-hmm. nga xamante ne nii action yi ñu nekk di def biir Sénégal yépp si ñooñu lañ ko accès. donc loolu moo waral doon ñu taxawal alliance bi depuis 2015 fii ci Sénégal. Mm-hmm. am na benn projet boo xamante ni ci ngeen nekk di euh, liggéey mu di euh, right here euh, right now projet bi tamit boo su mënee ñëwaat tuuti. jërëjëf projet right here right now bi dafa nekk benn programme mondial. Mm-hmm. programme mondial boo xamante ne ni ñu ngi koy dérouler dans onze pays sur le plan international. Mm-hmm. et fii nii bu ñu ñëwee ci région Afrique bi ñu ngi dans quatre pays ci quatre pays yi nga xamante ne nii moom la ñuy mettre en œuvre programme boobu Sénégal moom moo si le seul pays francophone et programme boobu ki ko financé mooy le gouvernement hollandais à travers le ministère des affaires étrangères. Mm. donc benn programme la boo xamante ne nii c'est essentiellement axé. sur le renforcement de capacité et le plaidoyer destiné aux organisations de la société civile donc parce que gis nañ ne tey jii organisation de la société civile yi surtout ñu ndaw ñi soxla nañu ñu renforcer seen capacité organisationnelle pour leur permettre ñu mën a jouer davantage mission bi nga xamante ne ni ñoom la ñu am surtout sur la santé de la reproduction des adolescents et jeunes alors programme boobu nag commencé woon nañ ko depuis 2017 2017 ren mooy suñu quatrième année d'intervention programme bi ren la war a jeex en 2020 et que dañu ne woon euh, tey jii programme bi li ko taxoon jóg moom mooy plaidoyer ak renforcement de capacité mais bi mbas bi dugg see Sénégal depuis euh, début mois de mars ba léegi mm-hmm. ñu ne il fallait que ñun également aussi ñu orienté waat suñuy intervention parce que ñu ngi dans un contexte un peu particulier avec la pandémie il fallait que également ñun en tant que programme ñu apporte suñu contribution par rapport à la riposte nationale donc mm. l'effort de guerre comme l'État l'a dit il faut que acteurs yëpp indi seen loxo mën a jàppale état bi pour ñoom it ñu ñu mën fi jëlee mbas bi loolu moo taxaw ñu développé ay actions yi nga xamante ni dañu ne dañuy communiquer ci li nga xamante ne nii moom mooy impact yi Covid 19 bi am. sur les services de santé de la reproduction des adolescents et jeunes. Mhm. loolu nag euh, biñ ko commencé euh, tey ci suba ñu ngi woon ci beneen beneen beneen station FM pour discuter ci. Mhm. tey ji également aussi ñu ñëw ci Grand Yoff parce que Dakar. dafa bokk ci zone d'intervention bu projet Right Here Right Now loolu moo taxoon tey ñu ñëw pour waxtaan ak ndaw ñi ci impact yi Covid bi am par rapport ak seen wàllu wér-gu-yaram. Mhm. Euh, projet boobu sax di Right Here Right Now am na beneen kuréel goo xamante ni ñoom euh, ci programme bi lañ bokk di ci yëngu mu di Africa Young Girls euh, madame Touré Aïcha Kanté yow nga bokk ci kuréel googu Africa Young moom kuréel gi yéen lan moo leen tax a jóg. kuréel bi mu ngi tudd Afriane. Ah, euh, waa exactement sigle bi c'est en anglais ñu gën ko xam ci African Youth and Adolescent Network boo ko traduire en français mu nekk réseau africain des adolescents et jeunes ñu nag dañuy travailler ci euh, dividende démographique di travailler sur les objectifs de développement durable mais également sur euh, euh la santé de la reproduction des adolescents et jeunes. Mm En ce qui concerne renforcement de capacité de nos membre dañ koy def avec les autres organisation de la société civile mais aussi on nous connaît tous sur euh, le plaidoyer parce que daaw ñoo fi créé woon la nga xamante ne moom mooy 25 heures de Dakar. Mm. di activité bu mag ma xamante daal daa regroupé 23. organisation yoo xamante ne parce que Afriane dafa nekk ci 23 pays de l' de l'Ouest et du centre. donc ñu daal regrouper Afrique euh, de l'Ouest et du centre ñëw fii Dakar. def fi 25 heures de Dakar sax moom moo fa nekkoon euh, comme chanteur. Mm, d' accord euh, kon ñu bi jëm ci wàllum SRAJ ak impact bi nga xamante ni Covid am na ko ci SRAJ boobu di fàttali mbokk yi ba tey yéen a ngi seen rajo Afia FM tey jii suñu émission ñu koy sekk ak ñi nga xamante ñoo di waa waa alliance nationale de jeunes pour la santé de la reproduction et de la planification familiale te li ñuy waxtaanee mooy impact Covid 19 sur la SRAJ euh, sëñ Dame tey da ngeen def taxaw seetlu ba gis ni euh, Covid am na loo xamante ni mi ngi koy yàq wala mi ngi koy defal euh, ndaw ñi ba tax ngeen di mën a seen communication. absolument parce que bu ñu taxawee seetlu. mooy Sénégal bi fi mbas bi dugg cee ci debut mois de mars bi. Mhm. état du Sénégal à travers le président de la République dafa jëloon ay mesures moom mooy bi ñuy décréter état gence bi ak couvre-feu mais également aussi jël ay mesures restrictives par rapport au rassemblement. Mhm. te mesures yooyu bi mu ko jëlee. dañu gis ne également dafa impacté même ba ci post de santé yi ak district yi parce que dem nañ ba ci consultation yi boo ñëwee mooy consultation de routine yi. Mhm. ñi nga xamante ne ni dañuy ñëw pour def seeni consultation prénatale gis nañ ne nombre bi ñu daan jël par jour dañ ko limité. Mhm. au lieu que ñuy jël par exemple trente personnes ou quarante personnes par jour dañ leen ne woon dix personnes la ñuy jël par jour. Mhm. pour di leen consulter parce que dañ doon éviter rassemblement yi. alors ñu gis ne bu ñu bu ñu tënkee mesure yi ci yooyu rek dafay am benn impact ci ñeneen ñi nga xamante ne ni dañu amoon jàngoro war te mënatuñ fa dem parce que tout simplement communication bi nga xamante ne nii moom lañ ci waroon a def dem na ba nga xamante ne nii nit ñi kat ragal nañu léegi bu ñu amee lu ñuy yëg seen seen seen yaram bi dem ci hôpital yi parce que yaakaar nañ ne bu ñu demee rek ñu ne leen da ngeen a am coronavirus. Mhm. donc loolu yëpp ñu ñu ñu gis ne depuis mesures yooyu bi ñu ko jëlee ba léegi am na ay jeexital ci wàllum fréquentation bi jeunes yi war a dem ci ci ci ci ci structure de sant yi war ko fa def. mais également aussi ñu déggaat fi ay problèmes ya nga xamante ne nii ci couvre-feu bi da daan am par exemple danga daan gis jigéen bu war a wasin mhm. euh, bu couvre heure bu huit bu jotee wala wala vingt bu jotee day am problème pour am transport bu ko yóbbu ci ci ci ci poste de santé wala district bi. Mhm. nga gis également aussi ci presse bi ñuy relayer parfois des informations yi nga xamante ne dafay am ci yenn centre de santé yi loolu yëpp tax nag. ñu ne nag il faut que ñun en tant que ndaw. Mhm. ñu taxaw seetlu ci waxtaan si pour que kat ñu wax autorité bi ko malgré que la Covid 19 est toujours la mais am na ay problématiques de santé publique yu nga xamante ne nii ba léegi nii war nañ ci taxaw bàyyi xel pour que nit ñi di continuer mën a dem si hôpitaux yi. mu mhm. ñu amee. li nga xamante ni dañ koy yegg seen wér-gu-yaram. Mhm. Euh, plus particulièrement les jeunes euh, comme ni ngeen koy waxee euh, Bassirou Samb damay ñëw ci yow moom wax na ko yow peut-être constat bi c'est le partout li nga xamante ni mooy structure sanitaire yi koy muy jeunes yi wala muy ndaw ñi kenn dematul utali fa rawatina jeunes yi surtout si wàllum santé de la reproduction mu nekk sujet boo xamante ni à chaque fois dafay nekk un sujet d'actualité parce que il faut qu'on le reconnaisse les les jeunes sont très actifs euh, donc Covid bi euh, maanaam coronavirus le fait que mu def que euh, ndaw ñi dem ba dootuñu dootuñu dem si structures sanitaires yi peut-être pour waxtaan ci wàllum planification familiale wala waxtaan si wàllum consultation post wala prénatal selon yow ban njeexital la war a mën a am si jeune bi nga xamante ni il a droit à l'information sexuelle comme on dit. merci beaucoup xam nga déjà boo boo jëlee rek de manière générale. la fréquentation des jeunes ci structure yooyu toujours ça été un combat mhm. parce que j'ai l'habitude de dire que suñu poste de santé yi ni ñu ko tëggee mhm. tey jafe na ndaw bu am fit jóg ni xaaral ma dem ci poste de santé bi ma gën a jege parce que pyramide sanitaire bi dafa am nu tëddee. Mhm. bari jafe na ndaw bi ni xaaral ma jóg ko dem poser sama problème de santé surtout su fekkee dafa am lien ak sexualité parce que ña ngi fay fekk souvent c'est des sages femmes yu ci ëpp sunu ay waajur la mag ñi nga xam ne sa xaritu yaay la sa xaritu papa la donc d'habitude jeunes yi pour ñu demoon sa confier wu. Mm. ça dafa nekkoon un problème. donc mm. nit ñi nekkoon ci di xeex bi nga xam ni mbas mi ñëw na le constat général. mooy sénégalais yu baree bari dañu daw hôpitaux yi. Mhm. parce que jàpp nañ ni saa yoo demee ci centre de santé wala poste de santé bi. tu exposé mën nga faa mhm. jóge ñu ne la mbas mi ma nga fa. Mhm. déjà c'était problème ñu fréquenté ko tey su fekkee ñemeetuñoo dem da boo xefee dina mujj doon saafara bu jur jàngoro. parce que dañuy bañ peut-être nit ñi rassemblé wu fa. mais tey xeex Covid bi warul tax ñu fàtte ni am na des problème de santé. yoo xam mi ngi fii peut-être ñu ngi dinaa def ñu ngi ci nawet bi. paludisme bi dinañ ci wax. Mhm. aujourd'hui si les gens jëluñu les précautions dem ci hôpitaux yi ça pose problème. Mhm. wooy jur yi nga xam ne dañu nekk en état surtout jigéen ñi war a dem def seen ay consultation mhm. ñooñu tamit aujourd'hui bu ñu demul dina mën a am jeexital. ci xale yi. mais ñi nga xam ne aussi jur nañ ay doom ba pare war ko yóbbu ñu dem def seen programme yi mel ni ñàkk yi yooyu yëpp c'est des questions yoo xam ni maa ngi wax keroog benn poste de santé de la xool yan stratégie la ñu mën a développer pour que consultation yi ngeen doon def problème de santé yi nga xam ne nit ñi daan nañ ko am surtout ndaw ñi. Mm. mais ñu mën ko jël en compte. te du yàq dara ci xeex bi nga xam ne ñu ngi xeex doomu jàngoro bi sinon suñu continuer mu am euh, peur boobu nga xam ne mooy animé nit ñi ñemewuñu dem. Mm. soo xefee ëllëg bu fi Covid bi jógee Sénégal dina delluwaat ci xeex boo xam ni. defe naa ne amoon nañ ci ay avancé parce que des questions comme santé de la reproduction ak li ko wër am na ay ndaw ak ay kuréel yoo xam ne depuis des décennies ñu ngi ci def ay xeex ba amoon ci ay avancé hmm. donc il faudrait pas que tey avec contexte Covid bi ñu permettre ñu nekkaat en recul sinon demain c'est des difficultés yoo xam ne dina ñu dina dina am te lool nag damay interpeller surtout acteurs communautaires yi parce que je dis que aujourd'hui y a que ces acteurs communautaires qui peuvent faire quelque chose j'ai l'habitude de dire que le décideur il est au le terrain acteurs communautaires nga fekk muy relais yi muy bàjjanu gox yi muy organisation communautaire de base yi. Mm. ñooñu tey il est temps qu'on les pour que ñu wax sénégalais yi surtout ndaw ñi. Covid bi mi ngi fi kat il faudrait respecte les gestes barrières mais il ne faudrait pas omettre qu'il y d'autres maladies yoo xam ni d'autres besoins yoo xam nit ñi am nañu ko. Mm-hmm. te ces besoins doivent être pris en charge par nos structures de santé. Mm -hmm. sinon demain ça va dañuy jóge ci lii. Mm-hmm. engagé beneen xeex on de voir. comment faire une pierre euh, deux coups, si on sait qu'aujourd'hui, les réalités dans nos postes de santé, dans nos structures, ça va très difficile, mais il faudrait qu'on essaie de faire avec mhm. pour que Nyariep ñu mën ko defandoo pour de ëllëg ñu bañ a nekkaat en recul par rapport ak avancé yi nga xam ne amoon nañu ko. d' na euh, soxna euh, Aïcha Kanté damay ñëw ci yow euh, parce que dafa am benn limite d' âge boo xamante ni moom ngeen tànn pour liggéey ak ñoom de zéro à vingt quatre ans. Mhm. balaa may ñëw sax si question bi am na loo xamante ni def nañ ko sax si ndaw ñooñu nga xamante ni dañoo am entre zéro ak vingt quatre ans ñoom ban xalaat ban gis-gis lan am ci jàngoro Covid 19 ñu déglu seen xalaat daal di ñëwaat si si waxtaan bi. naa day rayaane feebar bu feebar la daal waaw sol max yi ak di raxas xam naa la xamuñu ni jeunes yi tout le temps ñooñu si mbedd bi di football di bëre di foo lépp ñoo koy def parce que gars yi ñoo jël ay mesures waaw mesures yi xam nañ ko di raxas seen loxo sol max respecté distance un mètre bi ñoo koy respecté waaw bàyyi nuyonte bi waaw leen waaw ñu métti feebar bi feebar dafa dangereux chaque jour bu yeewoo dinañ gis man 17 coronavirus benn virus la daal bu jugee si dëkk chinois yi dañoo doon fagaru mais après animaux yi ñuy lekk moo waral pour feebar wàll leen ko seen dëkk après ñi ñëw fii ñu wàll ñu ko fii nii tamit après gars yi kii kañ lañ amoon premier cas. le deux mars. Ah. ngi dem dese yaa ngi dem. huit cent soixante ah. nga jàpp RTS Abdoulaye Diouf Sarr. taxaw yor li wax cas communautaire yi cas contact waaw ñu wax ñun cas communautaire waaw mooy wàllante bi rek loo xam ne day wàllante xamuñu foofu jóge contact mooy mbooloo bët nga am ko nga jege woo waaw jaxasoo si biir ñaata nga quinze taxawee mbooloo kenn bu ko amee nga sës ko da lay ak day ree daal waaw ñu ngi may raxas loxo yi kon gis ngeen euh, jeunes yi en fait xalaat bi ñu am ci li nga xamante ne mooy coronavirus est-ce que soxna Aïcha gisoo tey Euh, un manque de la bonne information jeunes yi tamit ñi ngi wax coronavirus mais am na information yoo xamante ni euh, ñun ñoom ñoom jeunes yi sendeewuñ ko comprendre ñu ko ñàkk information boobu nga xamante ni euh, jeunes yi instant yi ñu ngi koy subir jëm ci jàngoro ji selon yow lan moo war a mën a doon solution bi ba jeunes yi xam ne kat coronavirus jàngoro la mais teewul war nañuy topp ci sunu santé di dem ci structure sanitaire yi Euh, dëgg la madame Seck boo dégloo jeunes information bu ñu am c'est un peu une information erronée. Mm-hmm. te lu ko waral mooy des fois réseaux sociaux yi ñuy topp am na réseaux sociaux yoo xamante ne jeunes yi dañ fay nekk présents ils sont présents dans les réseaux sociaux mais euh, jeu bu ëpp mooy dem ñuy ñu ñuy dem ba transformer la bonne information. Mm-hmm. donc euh, ñoom duñ mën a discerner ce qui est la bonne information et ce qui est la mauvaise information. Ah te boo xoolee impact Covid ci structure de santé yu ñu daan wala et cetera gis nañ fi temps yi passé problème ndox bu ñu amoon. Mhm. nekkul juste pour bañ a euh, pour mën a raxas say loxo mais gis nañ ni jigéen ñi surtout les jeunes femmes ñoo xam dañoo nekk en âge de procréer. Mhm. chaque mois dañuy gis mbaax. Mhm. te loolu il faudra ñu am accès à l'eau propre loolu lépp impact Covid 19 la. ci. Euh, ci centre de la reproduction des adolescents et jeunes. Mhm. bu ñu dëggee tamit ci structure de santé yi ni Bassirou mu ngi koy wax sànq yan solution la ñu war a utiliser ba nga ne ñoom dinañ mën satisfaire besoins yi nga xamante yi am nañ ko sa te en même temps ñu ñu ñu respecter les mesures barrières. Mhm. tey jii bu fekkoon ne Sénégal daa nekk un pays développé commencé di développer ce qu'on appelle télésanté ou bien télémédicament yow à de sa téléphone parce que ce sont des recommandations yoo xamante ne OMS jot commencé utiliser les réseaux sociaux. Mhm. yenn plateforme digitaux yoo xamante ni euh, dinañ fa mën a def euh, soin maanaam euh, joxe fa la bonne information bu fekkee t'as besoin de médicaments xam ni ko mën commander en ligne. Mhm. di nga besoin yooyu di nga ko mën a satisfaire. Mhm. donc Covid boobu mën nañu jàngal lu bari que ni on a beaucoup d'efforts à fournir pour mën a accéder ci yenn produits yi. kon daam mën nañ jàpp ni information wala communication bi nga xamante ni autorités yi jamono ji ñu ngi koy véhiculer mooy mooy mooy effectivement parce que loolu moo tax euh, bi pandémie bi dugg see Sénégal euh, kuréel bi nga xamante ni nii moom mooy direction de la santé de la mère et de l'enfant mhm. dafa élaborer un plan de contingence pour la continuité des services Eserminia mhm. alors plan de contégence boobu lu ko taxoon a jóg mooy OMS dafa dafa dafa mettroon en place six directive te six directives yooyu daf ci am benn directive bu am solo mooy naka la ñu mën a fexee def ci contexte bi pour permettre à ce que li ñuy wax mooy le paquet de service essentiels ñu mën ko continuer. Hmm. te paquet de service essentiels boobu noonu li ci ëpp solo moom mooy l'information de qualité la bonne information. naka la ñuy fexee ba ndaw ñi naka la ñuy fexee ba acteurs communautaires yi naka la ñuy fexee ba organisation de la société civile mën a continuer di développer di dérouler aussi seen action de sensibilisation et de communication. Mm-hmm. et je pense loolu tey jii acteurs communautaires yi ñu ngi ci di jouer un grand rôle. Mm-hmm. organisation de la société civile bi également aussi malgré ce contexte particulier ñoom ñëpp adapté waat nañu seen stratégie. pour continuer di dérouler seen activités yi nga xamante ne nii moom moom moom la ñuy def te boo dégloo reportage bi da nga siy jàngat ne malgré que le ministère mu ngi def effort. di communiqué chaque jour. Mhm. mais da ngay gis ne également aussi dañu naan ba tey information bi des na. voilà moo tax ma ne est-ce que du ni ñuy communiquer moo des euh, est-ce qu'il temps quand même ñu changer méthode vraiment parce que léegi nit ñi xam na raxas loxo euh, xam na na euh, utiliser gel antiseptique xam na takk masque mais teewul voilà ñi ngi def lu leen neex peut-être mesure yooyu buñ ko respecté c'est parce qu'il y benn woy takk der bu taxaw kooku bu rombee nga tekk sa masque. masque sànni est-ce que tamit communication bi warul dépasser stade bi mu toll. je pense que Bassirou Sànq dafa wax lu am solo mooy le rôle des acteurs communautaires. Mhm. tey dañu gis ne feebar bi fi mu toll nii ñoom ñëpp euh, le personnel médical ñoom ñëpp d'accord nañu ne fi ñu toll nii la seule solution mooy une réponse communautaire. te réponse communautaire bi acteur communautaire rek ñoom ñoo ko mën a développer parce que ñoom ñoo gën a jege askan bi tey ni mu ko waxee également aussi baax na ñu koy rappeler mooy Sénégal dafa am ay avancées ci yenn jàngoro yi lu ci mel ni paludisme en mm-hmm. Afrique le Sénégal et une référence par rapport à la lutte contre le paludisme. Mm-hmm. te gis nañ ne tey jii bu ñu continuer euh, li nga xamante ne ni moom mooy ni ñuy gérer pandémie bi te dugaluñu acteurs communautaire yi ci réponse bi. du ñu dem fenn mais également aussi dans le cadre du tey ji am nañ ci des avancées assez significatives te li ko waral yëpp mooy rôle acteur communautaire yi parce que la bonne information ki la ko mën a jox mooy ki nga xamante ne nii jege na la xam na la xam na problème yi nga xamante ne nii moom ngay moom ngay dund mhm. heureusement d'ailleurs que maintenant le ministère l'a compris ba tey gis nañu ne aussi ripost bi yëpp au niveau national de plus en plus ñu ngi commencé di mettre en avant les acteurs communautaires je pense que loolu bu ñu ko continuer di développer ces initiatives là la communication de proximité je pense que problème yi ñuy wax nii yëpp dinañ ko mën a régler fii ci Sénégal Mm, euh, sëñ Dame mi ngi koy wax bas seen rôle yéen acteur communautaire yi ñu gis ni yéen Grand Yoff quand même euh, yéen ngi si am benn taxawaay bu mucc ay parce que wax dëgg yàlla euh, lii di masque ak gel antiseptique ak ay dispositif de lavage de main yooyu yëpp Grand Yoff wax dëgg yàlla manqué wu ko am ngeen si taxawaay bu am solo boo xamante ni fan yi yéen a ngi yéen a ngi ci liggéey yéen acteurs communautaires yi nekk fii ci Grand Yoff effectivement xam nga boo dégloo professeur dafay wax ni Covid 19 pour xeex ko. ce n'est pas au niveau de la prise en charge qu'il faut intervenir mm mais c'est au niveau de la transmission qu'il faut casser la chaîne parce que tey jii bu xesee ba ñu ne positif nga ñu yóbbu la foofu spécialiste de la santé ñuy intervenir mais naka la ñu mën a def ba feebar bi du egg foofu c'est là où le Sénégal doit faire des efforts. Mmh. parce que jàpp naa ne ministère ne fait plus dans la communication ils sont dans l'information. Mhm. parce que chaque dix heures ñu taxaw ci télé bi xale yi sax léegi dañ koy def concours jeu. Mhm. ministre bi tey dina wax tant de cas communautaire donc ils sont dans l'information. aujourd'hui gis nañ Sénégal nous sommes à de huit mille cas tey nee plus de cent soixante décès dépassé nañ ko. Mhm. est-ce qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter un pour voir est-ce que la stratégie bi ñuy adopter c'est la bonne information c'est la bonne stratégie. Mm-hmm. parce que si je prends l'exemple de Grand F comme tu l'as dit il y a énormément d'efforts qui ont été faits parce que nous avons mobilisé les acteurs communautaires muy bàjjanu gox relais communautaire président AIC président ay association ñëpp mobiliser wu dans la lutte mais man dama jàpp ni li des tey tant que au niveau central la communication n'est pas cohérente la communication n'est pas convaincante. ñun acteurs yi nga xam ne ñoo nekk sur le terrain dañu am ay jafe-jafe. ce matin rek dama xëy ñëw ci mbaar bi femme bi xam ne man souvent fa laay jaar yenn saa yi di ndekki. dama ñëw rek waa ji ma fekk ma fekk ko ma ñëw jël gel bi di fomp moom eh waa Covid yi ñëw nañ. ma ne ko nga la mu ne mooy yéen yéenay waa Covid. c'est-à-dire c'est comme si sénégalais yi dañu dem ba jëf ko de manière affaire caaxaan yow mi ci nekk di xeex dañ lay étiqueté non ñii ñooy waa Covid alors que yow tu te bats pour la cause commune. tu te pour que ñoom ñu comprendre que ne aujourd'hui cette maladie elle est plus que présente mhm. parce que tey jii chaque jour yaa ngi dégg cas yi cent jëm kaw ngay gis nombre de décès yi augmenté na mm -hmm. nombre de cas communautaires yi léegi on dépasse les quarante trois par jour mm -hmm. aujourd'hui xamuñu sax ñun ñuy dox damay wax ne kenn ku ne yaa ngi dox mais wóoru la ndax am nga doomu jàngoro bi donc li fi sës mooy il faudrait ñu respecter les gestes barrières et la communication bi ñu amoon au au niveau des médias au niveau étatique mais dafa am benn relâchement aujourd'hui pour nga déggat sax nit ñi wax ci au niveau des médias wàññeeku na mm-hmm. l'état communication agressive bi mu doon def wàññeeku na mm-hmm. wala que pour man tey jii la gën a yokk parce que la stratégie de l'état changé na mais stratégie boobu changé les populations xamuñu ko l'état dit aujourd'hui c'est les plus de 60 ans rek la ñuy jël yóbbu hôpital mm-hmm. les cas asymptomatiques dañ koy gérer à partir des maisons les ñu ne aujourd'hui defatuñu test pour tous mais bi nekk ci quartier am ne bu ko doomu jàngoro tey dañ koy bàyyi këram donc loolu ça pose problème déjà la prise en charge à domicile man dama ne woon dafa am problème parce que quand tu dis cas asymptomatique da nga koy garder ci kër gi ku xam la configuration de nos maisons niveau de vie sociale bi am nit ku am doomu jàngoro bi ñu war la téye ci kër gi. ça pose promiscuité bi ça pose problème ak promiscuité bi. je mm-hmm. prends un exemple fu ñu dëkk comme Grand Yoff nga dem dans certains quartiers yoo xam ne dans une maison da ngay du benn néeg boo xam ne dix personnes dafay dëkkandoo. Mm-hmm. su ko fa kenn amee ñu ne léegi kooku dañ ko war a gérer ci kër gi. imaginer naka la prise en charge boobu war a demee donc il énormément de failles yoo xam ni tant que corrigé wuñ ko les acteurs communautaires dañuy sonn rek mais population bi pour ñu pour ñu gëm réellement feebar doy na waar li eh, reportage bi ngeen def léegi rek c'est assez ah, illustratif. dégg nga xale yi aujourd'hui après trois ou quatre mois. Mhm. ils sont même pas capables de te dire lii mooy feebar bi. Mhm. jusque là dañuy fooy. yenn saa yi da ngay dem ba mu yàgg tuuti di est jarati na ko da ngay xëy jël mille masques séddale ko ci benn koy une heure deux heures de temps mel ni mosoo fa jaar séddale ay masques. tu donnes des gels antiseptiques ñenn ñi ne la non non bu ñu sonal ak yi dispositif lavage yi amoon ci mbedd yi ñu ci bari commencé nañ ko bàyyi. parce que sentir nañu benn relâchement au niveau central dañuy wàññi alors que xamuñu ne lii metti ci ñun lay njëkk a jóge mhm. parce que ñun nu sommes le bas peuple ñun ñoo nekk ci suuf da ngay toog ba yàgg cas bi ci mujj semaine passée un un un gars mhm. positif habite quelque part à Grand mais këram lañ ko bàyyi cas asymptomatique la mhm. trois jours après ces signes yi commencé na génn mais pour qu'on trouve rek fu ñu ko mën a yóbbu ñu transférer ko c'était la croix et la bannière on donne des numéros de téléphone nga woote bay bëgg de pour leur dire que cas bi kat commencé na grave yóbbu leen ko mais tu as toutes les difficultés du monde parfois pour rek mën a signaler yooyu donc il y de choses yoo xam ne si on veut aujourd'hui arriver à bout de cette maladie mm-hmm. dama gëm ni il faut qu'on replace l'acteur communautaire au centre mu bañ a yem ci déclaration d'intention déclaration de politique ci médias yi mais mu doon loo xam ne c'est la réalité et l'autre fi may daanee la wax naa ko il faut qu'on arrête les actions semaine passée j'ai maa ngi ko doon wax benn ministre de la république bu ma doon rencontré dans ce ma ni ko xam nga tey li ñuy def dañu war a xam ne tollutuñu moment politique mm-hmm. tey xëy sa kër dajale sa cinq mille masques say cinq cent butéel gel hydroalcoolique ñëw sa koñ dajale say militan ni leen damay jàppale covid bi jox leen ko dem amul njariñ il faudrait que sénégalais bi ngay jox léegi gel antiseptique bi wala masque bi nga wax ko le pourquoi nga koy jox mais j'ai l'impression que les ngi ci benn course chacun veut montrer au président que way sama koñ distribué naa fa alors que la nga yow tu n'es même pas capable d'expliquer ki nga koy jox lan lay jariñ donc pour dire que tey bu ñu fi continuer di wax on rendre rendra compte que on a péché si maladie bi et il n'est pas trop tard parce que elle est là mais gan la goo xam ne nag mi ngi bëgg a miin te mhm. gan nag bu demee ba miin il nga xoolaat naka ngay dëkkan dëkkan moom mhm. 88 628 05 05 88 628 05 05 ngeen di def mbokk yi ngir mën a bokk ci émission bi tey li ñuy waxtaanee moo di impact euh, Covid 19 ci srag maanaam centre de la reproduction des adolescents et des jeunes waaye taxawaayu ñii di relais communautaire yi ci xeex bi nga xamante ni ñi ngi koy xeex wàllum SRAJ damay ñëwaat ci sëñ euh, Dame Ndoye wala soxna ay ku ci répondre rek baax na euh, ci mesure mesure yi nga xamante ni jëloon nañ ko fii ba mujj gi ñu bàyyi mesure yëpp ci laay ñëwaat ñu tere woon fi euh, rassemblement ak yu ni mel rassemblement ba tey ñu ngi koy tere mais ñu gis ni dafa dafa am benn dëgër bopp boo xamante ni jeunes yi surtout ñu ngi koy jaayante ak autorités yi ndax boo demee au niveau des plage jamonoy nawet la nekk jamonoy été la nekk dafa tàng mais jeunes yi dañoo fees dell ci euh, plage yi te ku nekk xam na plage euh, bari na ay mbir yoo xamante ni euh, ma ngi fay ma ngi fay am jëm ci wàllum sexualité yéen est-ce que am na benn taxawaay boo xamante ni yéen a ngi koy jëmale ci ndaw yooyu nga xamante ni rassemblement yi tere nañ ko mais au niveau des plages teewul ñu ngi continuer di mener seeni i activités. waaw je pense que euh, tey comme niñ koy waxee ah c'est vrai que euh, mbas bi taxoon na vraiment ñu jëloon ay mesures pour endiguer l'épidémie te loolu noonu mesures yi nga xamante ne ni moom moo ci ëppoon solo mooy rassemblement yi ñu tere woon. Mm-hmm. te gisu nañ ne état bi dafa dem ba ci kanam tuuti mu commencé am ay pression ba sédde si pression yooyu noonu. mooy tey même si dafa sédde si pression yi parce Euh, gisoon nañu benn côté que ne yi ñu ngi exercer seen pression benn côté pour ñu ubbi jàkka yi. Mhm. gis nañ ne également aussi jeunes yi demoon nañu ba commencer manifester wu di dàqanteeg force de défense yi pour que couvre-feu bi ñu ñu ñu lever ko. effectivement aussi bi ñu levee mesure yi tamit gis nañu ni relâchement bi am gis nañ ne tey jii concentration milieu yi nga xamante ni daf daan dajale ay mbooloo yépp boo fa demee. da ngay fàtte ne sax ne ci période mbas la ñu nekk parce que tellement nit ñi respecté ñu gestes barrières yi nit ñi euh, fàtte nañu pour ñoom sax corona amatul Sénégal parce que loo wax rek mooy li Basir wax dañ koy jàppee affaire politique. Hmm. parce que tellement communication ñu ci biñ ci développé. et que loolu tey jii dafa ñuy indiwaat rek ñun en tant que acteur euh, communautaire suñu taxawaay lan la war a nekk parce que suñu rôle moom mooy que ndaw bi ak fu mu mënti nekk. ñu fexe fekk ko ko jox ko la bonne information. Mhm. loolu moo taxoon si suñuy stratégie de communication dañu daan def sax ay sorties ci plage yi parce que comme période été tàngoor bi boo bëggee gis ndaw ñi ci géej nga leen di fekk. Mhm. ñun aussi ñu adapté suñuy stratégie di leen fekk si géej di leen jox la bonne information. Mhm. donc je pense que loolu la rek euh, contexte bi lu muy gën di évoluer également aussi acteur communautaires yi loolooy seen force. ñoom également dañuy dañuy adapté wu par rapport à, à, au contexte actuel. mais est-ce que le le, le résultat yéen a ngi koy am parce que tamit di wax wàcc si si si yi di waxtaan ak jeunes yi ay Aïcha de plus en plus foule bi di gën a yokk ci plage yi wax dëgg yàlla foofu est-ce que euh, résultat bi ngeen di xaar yéen a koy gis. Euh, su ma nee woon tey bu ko doon xool ci échelle boo defoon cent cinquante ngay am. te cause bi c'est pas seulement que ni c'est parce que état bi dafa def relâchement que ni jeunes yi dañoo war exposer seen bopp. mais pour lutter contre Covid 19 ça doit être d'abord personnel. Mm-hmm. benn conscience ba nga xamante ne di nga ko am personnellement nga ni man je vais pas prendre le risque d'attraper cette pandémie wala ko sama famille. Mm-hmm. affaire bi la en fait il y a la psychologie des jeunes qu'on doit prendre en compte ci euh, euh, pour combattre euh, pandémie gis na la plupart du temps jeunes yi ñooy génn indi feebar bi ci biir kër yi wàllu ko mag ñi. exactement te ñoom euh, prétexte bu ñu daan joxe mooy que ni même boo xoolee Sénégal dañoo ne revenu wam c'est tellement bas donc à chaque fois lu ñu daan def compression au niveau central mooy que ni on doit trouver de quoi manger euh, malheureusement euh, kit alimentaire yi peut-être dafa ñëw tardivement. Mm -hmm. loolu lépp day am impact ci jeunes yi la fekk ñu daal di. dem affronter les forces de l'ordre na ñoom dañoo bëgg génn mais seen génn boobu noonu en fait ce n'est plus légitime mm -hmm. parce qu'ils ne sortent pas pour trouver du travail ou bien pour aller chercher de quoi manger non non ils juste pour le plaisir quoi mm -hmm. en mm-hmm. fait c'est effectivement xam nga tey la la réalité mooy relâchement bi c'est général xam nga tey boo xëyee dégg ñu la tey on à cent vingt cinq nouveaux cas mm-hmm. quarante cinq quarante neuf cas doit inter parce que cent 125 la ñu wax de te dis-toi que on a réduit les tests. Mmh. on a réduit les tests. Mmh. si mm-hmm. on n'avait pas réduit les on serait à combien par journée. Mm-hmm. cest à un moment donné xool la réalité parce que man li ma gëm mooy la la dernière la décision bi ñu mujjee jël état bi ça ne s'imposait pas gis nga un état parfois il faut savoir être ferme c'est pas parce que troisième génn nañu taal pono ci mbedd yi qu'il faudrait relâcher les mesures est-ce que réellement ñooñu lan lan la ñu teg sur la table tey. Mm-hmm. aujourd'hui les plages comme tu l'as dit fees na del les salles de sport fees na del mm-hmm. même les manifestations publiques même les manifestations publiques reprendre na mm-hmm. démb à la place de l'Obélisque amoon na fa aujourd'hui dernièrement xoolal les les rassemblements yi nga xam ne am na yëpp et on essaie de faire le parallèle avec le nombre de cas bi nga xam ni am na xew yi tey reprendre na le ministre de l'Intérieur jël na arrêté prolonger le port obligatoire de masque mais ci mbedd yi nit ñi ils takkatuñu masque yi. sànq gis ñu force de l'ordre quand on aussi parfois je reproche ça tu peux venir imposer à une personne de porter le masque alors que yow porté takkoo ko. parce que nag charité bien ordonnée commence par soi-même. juste Donc, pour appuyer li nga wax. démb damay wàcc. policier bi di ñëw femme bi gaawantu takk masque am policier bi ñëw di ko man sax takkuma masque. effectivement tey été bi tey demal plage yi day fees dell te si on y prend garde. jëlal yi fañ jëm. nous allons vers Tabaski moment de rassemblement. soo ci jógee si on fait pas attention on nous allons vers le màggal. màggal jëm vers le gàmmu. Mhm. jëm vers fin d'année donc li des ci année bi c' est des moments de grand rassemblement. Mhm. aujourd'hui il faudrait à un moment donné qu'on s'arrête xam lan la ñu bëgg. Mhm. est-ce que nous voulons arrêter cette maladie. ou dañu bëgg dund ak moom continuer mu rey. je dis souvent à mes bu ma ne toog ak ñu man la gis nga tey ñun jeunes yi nous avons peut-être la chance feebar mën nañu dal ba gënt du ñu tëddal mais ñun ñoo koy am yóbbu ko sunu kër rey sunu mag ñëpp. wàll ko sunu maam yi wàll ko sunu waajur yi ci kër yi parce que ñoom seen organisme attanul feebar bi il faut faire le choix est-ce que nous voulons ñun des ak sunu maam yi ci kër yi wala dañu bëgg jox leen doomu jàngoro bi ñoom ñëpp yóbbu leen et la nag c'est vrai il y a une responsabilité individuelle mais l'État est là pour réguler l'État est la pour prendre de décision décisions il n'y a que moo ko mën a jël parce que nag am na fu ñu toll dootul tollootuñ négociation li ma gëm tey région de Dakar quand on dit que sur les 8000 hectares, Dakar dépasse la barre des 5000 députés. Mm -hmm. Et aujourd'hui, on fait comme si de rien n'était à Dakar. Est-ce que Dakar ne mérite pas des, des mesures exceptionnelles Parce que de, si on ne maîtrise pas Dakar, mais la maladie mingi partout au Sénégal. Les cas communautaires, ils donnent 5-6. Ils donnent 49. Et si tu fais le décompte, il faut avoir au moins Sénégal. Donc c'est un peu partout. La maladie, elle est en train de, de, de faire le tour du pays. et s'implante de, plus en plus. Mhm. donc il faudrait que l'on s'arrête à un moment donné xool laka lañ bëgg. que les acteurs communautaires ñenn ñi commencé nañ toog mais ñu solaat seen dàll. que les collectivités gën a impliqué waat. que l'État aussi gën a corser les mesures mais gën a avancer c'est vrai qu'il y a un combat aussi boo xam ne on duñu ko bañ mooy le combat économique parce que l'État est entre deux marches est-ce qu'il mhm. faudrait continuer à corser pour que pays a sombre ou aussi euh, préserver les intérêts économiques ça aussi euh, je comprends souvent le décideur dina xaw a met mais nag damay wax ni économie pour mu baax foog ñu koy doxal wér suñu wérul économie du taxaw. Mhm. kon di fàttali mbokk yi ba tey yeneen seen rajo Afia FM ba tey ñu wéy seen émission gindeeku tey ñu si ànd ak waa alliance nationale pour la pour la pour la santé de la reproduction. et de la planification familiale li ñuy waxtaanee mooy impact Covid 19 ci euh, wàllum SRAG maanaam centre de la reproduction des adolescents et des jeunes si waxtaan bi nag ma si ànd ak ki nga xamante ni mooy di dam jaay di coordonnateur euh, boobu le projet waaye kii di Aïcha Kanté moom bokk si euh, Africa Young ak Bassirou Samb nekk acteur communautaire fii ci Grand Yoff di fàttali rek yéen ma ngeen def 88 628 05 05 88 628 05 05. ngeen bëggee bokk euh, ci bile waxtaan am na kenn koo xamante ni euh, dab nañu si biir euh, émission bi ñu bàyyi que le temps que mu installé wu souffle tuuti après dina ñëwaat ci moom mu di soxna Sira Doumbia moom nekk si district non responsable ak information jëm ci wàllum santé soxna Sira Doumbia ñu bàyyi la rek donte sax tardé nga lu bare bari wax dëgg yàlla waaye bal na la lool ñu bàyyi la nga nuyoo. jërëjëf di wax mbokk yi asalaamaaleykum wa donc ñu ngi jéggalu ci li nga xamante ne moom mooy retard bi donc euh, man maa ngi tudd Sira Doumbia euh, donc man maay la responsable de l'éducation et de l'information pour la santé du district nord euh, di wax ne xëy na daf ñu fekk ci terrain bi moo tax vraiment retard bi mais ittelaw pour ñun ndax dañuy faral di def ay émission fii en santé par rapport surtout à, à la Covid 19. donc di jéggaluwaat bu baax. Mm-hmm. Euh, di leen xamal ne am nañu mbégte même bu dee sax cinq minutes. wax dëgg yàlla wax ko mun a partager ak jeunes yi ma fi dégg nga xam ne vraiment dinañu mën a weccoonte xalaat lu bëri lu mu tuuti tuuti ci ay minutes. Mm-hmm. ci li nga xamante ne moo jëm ci xeex bi ndax. dafay feddali ñun suñu engagement ci lutte bi nga xam ne moom lañu nekk. Mhm. suñu gisee un engagement pareil merci. Mhm. Euh, ci lutte bi yaa ngi wax nga ko yaa ngi jege sur le terrain ngeen liggéey jamono yi ci wàllum Covid. Mhm. Euh, bu ñuy wax tey situation bi tey buñ ko doon def euh, liggéey bi fi mu toll nii lan lan lañ ci mën a jàpp sénégalais yi soobu nañ bu baax ci xeex bi wala dañoo téye seen loxo xeex bi mi ngi avancé ñi ngi jéem a xeexante feebar bi ngir mu jug fi situation bi tey buñ ko doon def lan lay doon. waaw tey bu ñu doon def situation bi yaakaar naa ku ko xool rek analyser ko rek di nga gis ne euh, am nañu impression ne nit ñi engouement bi ñu amoon tout à fait au début euh, am na relâchement ça il faut le le souligner et que relâchement boobu ñan la c'est toujours la population. Hmm. te ma jàpp ne population bi man la yow la keneen la keneen la donc ñu war a jàpp ne c'est d'abord un engagement individuel. balaa muy nekk engagement collectif dafay nekk engagement individuel ba pare individuel boobu nag laalaale ku nekk nag ba mu war a mun a devenir un engagement collectif. Mm-hmm. Euh, parce que sànq mi ngi koy wax par rapport ak jeunes yi ça je crois que puisque nous parlons de SRH et et Covid. Mm -hmm. c'est le moment de lancer un appel fort parce que effectivement relâchement bi ñu gis du mag ñi de c'est en fait la frange de la population. bu waroon nekk tey le soubassement même de ce pays foofu la ñu gisee relâchement bi. Mm-hmm. et li tax muy inquiéter un peu on s'est dit pourtant tey ñoom ñii ñoo waroon jël xeex bi tey porter ko d'une façon ba nga xamante ne. ñoom ñooy rappeler à l'ordre képp koo xamante ne kii taxawee nga noo xam ne waroo ko taxawee ci wàllu xeex bi. Mm-hmm. parce que euh, xam nga su fekkee mbir am na ba nga xam ne tollatuñu ci am naag amul. léegi moom am ngi leer na bien que jusqu'à présent on rencontre des gens yoo xam dañuy wax ne lii amul mhm. parce que tout simplement man teguma ko sama bët parce que gisuma koo xam ne faatu na ci ci ci feebar bi wala gisuma koo xam ne nee nañu euh, feebar bi la am donc c'est des éléments yoo xamante ne nit ñaa ngi actuellement ci déni ñeneen ñi ne la am na loo xamante ne lii xëy na santé daf ko lëkkaloo ak politique mais man ma jàpp ne quelque soit alpha situation bi nga xam ne moom la ñuy wax man ku nekk ci fi nga nekk maanaam doo ma gën a bëgg sama wér-gu-yaram hmm. ak foo mun munti nekk hmm. ak noo munti toll ak grade boo munti am doo ma gën a bëgg sama wér-gu-yaram hmm. parce que tey jii su ma feebaree balaa ñeneen di ko yëg xëy na samay njaboot ak yooyu man je suis la première concernée man maa koy njëkk a yëg donc il faut que nit ñi d'abord intérioriser loolu xam ne c'est vrai la santé de tout est important mais d'abord ma propre santé te ma propre santé ça doit être un engagement boo xamante ni bi il faut mu jóge ci man mais ñu xam ne aussi day def effet par rapport aux autres parce que nit rek nekkul en individualité nit dafa nekk dans la société société boobu nekk dafa am solo muy bàyyi xel ñeneen ñi te suñu newee ci société bi ça renforce la euh, la santé reproductive des jeunes mmh. parce que cette jeunesse là qui est là on doit veiller à sa santé reproductive mm. et on a vu que Covid bi impacté na lu bëri par rapport ak euh, la fréquentation même des structures sanitaires mm-hmm. et cette fréquentation nan lay lan lay manifesté woo ce manque de fréquentation lan lay euh, manifesté woo mm-hmm. dootuñu amati conseil en matière reproductive mm-hmm. suñu buggee accoucher wala ñu bëgg euh, jël ëmb wala jël contraception xamuñu fan la ñu war a dem en toute sécurité pour le faire parce qu'on a vu que bi xeex bi déclaré woo rek ñëpp dañoo rétracté wu. automatiquement même la fréquentation des structures sanitaire du su caageen ne wàllu sax santé reproductive rek mais concernant les autres programmes on a que la population dafa ne xaaral ñu toog suñu kër xëy na foofu la ñuy amee jàmm. alors que nous sommes en matière sanitaire te man dama jàpp ne fi nga xamante ne yow tey jii wàllu wér yaram foofu moo la war a jàppale soo toogee ne duma fa dem beneen problème mu santé day ñëwaat. Parce que nous faisons partie des districts, des premiers districts qui ont sonné l'alerte. Parce que quand on est allé en réunion de coordination, ñun ñoo ne euh, am na impact parce que premier impact bi ñu alerté mooy par rapport à couvre-feu bi y avait des femmes qui devaient aller accoucher et on s'est rendu compte que on a remarqué des accouchements à domicile yoo xamante ne yi te quand on parle de la santé de la mère et de l'enfant loolu c'est risqué par rapport à la santé de ces femmes hmm. On a sonné, sonné l'alerte. C'est en ce moment que la région médicale a organisé une descente par rapport à ceux qui nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu santé de la reproduction pour que ñu def l'état des lieux war a mën a nag xool quelles sont les mesures correctrices qu'il faut apporter pour que ñu mën a veiller à ça mais aussi on a remarqué que par rapport aux sages-femmes qui devaient recevoir les jeunes ak yooyu dañuy ñëw sax mais amuñu ñoo xamante ne ñi ñoo fay ñëw pour ça donc ma jàpp ne xëy na su fekkee dañu nekk ci benn lutte xëy na ñi nga xamante ne ñoom santé rek la ñu nekk li mooy nan la ñuy fexee ba def ba génn ci li nga xamante ne moom mooy mbas mi mais d'un autre côté il doit y avoir des gens qui vont toujours sonner xool aussi nan la ñuy jàppee ci xeex bi pour rappeler les gens pour leur dire que des problèmes de santé qui sont là et que suñu deful attention l'après Covid ce sera difficile à gérer. mooy acteurs communautaires yi ñu doon waxtaanee léegi rek. voilà et par rapport ak euh, loolu tamit bëggoon naa ci sandi tuuti parce que. Euh, moi, je suis aussi la coordonnatrice de tous les acteurs communautaires au niveau du district, que ça soit Badjanougor, que ça soit Relais, que ça soit les organisations communautaires de base. Mm <clears throat> Parce que les, nous, nous, avons, nous, raisonnons en, nous raisonnons en termes de réseau, réseau des acteurs communautaires. Et que ce n'est pas un réseau qui est fermé. Les autres organisations communautaires de base des jeunes, nous nous affiliés sur réseau Bobo, parce que ça nous permet d'avoir une vision beaucoup par rapport au district pour mun a maaye et c' par rapport à ça que ñun si lañ nekkoon sur le terrain parce que effectivement bi ñu remarqué ne y' a un relâchement par rapport à cette lutte on s' est dit euh, en accord avec la région médicale mais aussi avec un socio-anthropologue qu'on appelle euh, professeur Niang dañuy préparer res euh, si kanam tuuti rek c'est-à-dire à partir de lundi une formation par rapport aux jeunes qui doivent former d'autres jeunes c'est-à-dire on prépare une formation de 1110 personnes en tout mm -hmm. pour que ñu mën a maayer la population du district dugg ci population bi waxanteeg ñoom xam au fait lan moo waral ce comportement là waxtaan ak ñoom déglu leen mm-hmm. ne pas imposer quoi que ce soit, mm -hmm. mais comprendre ce qui est derrière ce comportement-là. Parce que certainement, on a des raisons, mhm. Mhm. et on aimerait vraiment savoir ces raisons. Et si on sait ces raisons, si nous saurons ces raisons-là, nous allons analyser, agir pour que vraiment, en un laps de temps, nous puissions D'accord. Euh, Dame Diaye, euh, juste, pour selon vous, selon cette euh, alliance, quelle devrait être la solution Bonne ligne, les gens qui ñu mën ko def surtout si wàllum santé de la reproduction ci wàllum PF. je pense comme euh, ni ko euh, suñu tata bi waxee léegi je pense que moom rek ci euh, intervention revenir la ci solution yi solution yi tey jii buñ ko doon jéem a jëmmal mooy renforcer davantage la communication il faut communiquer encore communiquer toujours communiquer mm-hmm. parce que loolu rek moom moo mën a tax tey jii ñu régler problème bi parce que comme ni ñu koy waxee Bassirou rappelé ko professeur Seydi di ko rappelé tout le temps problème bi warul nekk la solution du solution médicale la solution c'est de voir comment rompre la chaîne de transmission au niveau communautaire hmm. te mmh. de transmission bi rompre ko au niveau communautaire il faut nga liggéey ak ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo ñoom ñoo jege communauté hmm. mais également aussi ñu jéem a fexe ba malgré contexte bi ñu assurer aussi le paquet de services minimum au niveau des postes et districts de santé. Mm-hmm. Covid bi waru fi nekk rek. ñu ne dañuy limiter nombre de consultations yi par jour nit ñi dematuñu seen seen rendez-vous CPN yi nit da ngay am grippe sax léegi dootoo nangu dem hôpital il faut que également aussi comme ni ko ministère fan yi sax gis naa seen point de presse bi bu ñuy jeexal di wax nit ñi ne leen ku am rendez nanga dem ci sa rendez-vous ku waroon dem vacciné wu na nga dem ci yóbbu leen xale yi ñu dem vacciné wu. Mhm. je pense communication bi de façon graduelle noonu lañ koy wala améliorer pour prendre en compte orientation ak directive yi nga xamante ne nii. OMS wax na ko pour ñu mën a assurer la continuité des services dans ce contexte de pandémie d'accord Basirou Sam presque heure bi li ñu si joxoon jeex na ñu bàyyi la nga terminer waaye te nga tàggoowaale benn yoon. ok en fait damay aborder dans le même sens que daaw li ma wax sànq rek il faut une communication de proximité ñu génn ci la communication institutionnelle. il faut que communication boo xam ne jege na nit ñi wax ak ñoom et que parallèlement à cette contre euh, la pandémie mm -hmm. mais ñu mën a sur les autres besoins yi nga xam ne nit ñi am nañ ko mm-hmm. il y a des en cours comme Grand Yoff Euh, parce que au niveau de la commune dañu mettre en place plateforme communautaire de plateforme de riposte communautaire. Mhm. bu professeur Djibi Diakhaté jiite. tey il y a ce Covid qui est initiative qui amène les ASC non pas sur le terrain du football mais sur le terrain de la sensibilisation les initiatives se démultiplient chaque ASC est en train de se redéployer au niveau de son quartier. Mhm. pour dire aux tey la nation a besoin de vous donc c' est une initiative qui est en de donner ses fruits. Mhm. nous invitons mhm. les jeunes à se mobiliser davantage que ces ASC c' est le moment de montrer beneen visage. wane ni au delà du football violence bi nga xam war nañu mën a nekk ci terrain bi aujourd'hui ñi ngi ci def lu am solo. Mhm. déjà demain rek am nañu rassemblement bu mag avec quatre ministres de la République le maire qui viendront. pour lancer une communication wax ne ASC première phase bi il faut maintenant accélérer la communication au niveau des bases impliquer ci bàjjenu gox yi tout le monde je pense que si on a des actions comme ça aller vers aussi la mutualisation parce que y a beaucoup d'acteurs qui interviennent comment ñoo bokk lu ñuy def am na yaakaar ni euh, très bientôt bu fi feebar bi jógewu itam ni transmission bi bare mu wàññeeku parce que suñu arrondissement bari na fi mhm. dans une commune comme Grand Yoff je dis à mes amis attention la maladie mi ngi jël des proportion inquiétantes. te fii ni ñu dëkkee bu fi maladie bi demee ba gën a romb fii. ñun ñëpp nous sommes en danger. Hmm. donc foofu tamit ñu ngi invité waat le district. invité tous les acteurs pour ñu gën a renforcer l' intervention parce que une commune comme Grand Yoff une commune comme Parcelles qui sont les deux communes les plus peuplées. Mm -hmm. mérite une attention particulière des autorités avec des stratégies. Hmm. pour mën a arrêter maladie bi. di leen gërëm bu baax a baax hmm. waa Afia. di gërëm euh, waa euh, ñoom daam ak euh, sama xuloowaale. di rafetlu liggéey bi parce que Afia moom liggéey bi ni may wax chaque jour taxawaayam ci feebar bi ak budul feebar bi. ñëpp a ngi koy rafetlu si on tous les médias faisaient comme ça jàpp naa ni euh, dinañu am ay avancées ci ci ci ci feebar. am na solo di ko jaajëfal Basirou sàmba di jégalu wax dëgg yàlla xat nga trop xam na loolu mais def nañ la ba indi la di jégal bu baax ma madame Touré soxna Aïcha euh, ñu bàyyi la yow it nga lancé message bi rek daal di tàggoo. Euh, man euh, madame Seck message bi may lancer à chaque fois mooy que ni euh, pour combattre Covid 19 surtout en ce qui concerne la santé de la reproduction mooy dañoo war a prioriser la SDSR des jeunes dans cette lutte là. Mm-hmm. comment en incluant la nga xamante ne moom mooy paquet service yi les besoins en planification familiale comme mm-hmm. médicament essentiel dans la lutte contre la pandémie. Mm-hmm. mais également faciliter l'accès à l'eau qui est un besoin essentiel pour une bonne hygiène menstruelle des femmes et des filles. am na solo am na solo Euh, soxna soxna Sira Doumbouya wax dëgg yàlla bëggoon nan nga ñëw depuis le début ndax li ñu wax ni macha allah am na solo mais yoon yamul ci benn ñu bàyyi la rek yow it nga lancé sa message. Euh, merci donc euh, message bi may lancer rek euh, mooy vraiment di rafetlu ces initiatives là. et moi je me dis que ñun am nañu yeneen émission yoo xamante ne day ñëw j'aurais bien aimé que dans ces émissions là qu'on ait vraiment cette. Euh, Euh, cette particularité-là des jeune parce qu'on mhm. en a toujours besoin mhm. euh, parce qu'on se rend compte que ngeen baal ma nag ci ci ci kii bi euh, dañuy bàyyi xel ne tout le temps dañuy soxla euh, seen expérience parce que mooy li may wax rek en fait l'expression de ces jeunes-là on en a besoin parce que am na ñoo xam ne xëy na ñooñu la ñuy mën a dégg parce que ku mhm. nekk ak ka ngay mën a dégg donc c' est très important euh, un peu pour revenir si nawetaanu corona bi mu wax parce que je me rappelle que quand on le lançait avec le professeur Djibi Diakhaté on était avec le le, le préfet de Dakar le sous-préfet des parcelles et on a fait HLM Grand et on avait fait aussi Grand en même temps et c'est une initiative qui a non seulement fait tache d'huile et je waaw maanaam dafa def tache d'huile te je sais que ñeneen ñaa ngi ci jéem a euh, inspiré wu pour wane ne vraiment xarañte bi ci population bi lay génnee mhm. ñu ñu gën a jàpp ci initiative yu mel noonu mhm. aussi di di di di wax la ne euh, nos structures ont ouvert leurs portes c'est vrai que euh, xëy na ragal mi ngi fi woon te bu ñu nee ragal lu bees la woon ku ci nekk dafa doon recherche wu ku nekk da doon xool nan lay defee mu jàpp ne noonu moo gën a baax mais comme li ñuy wax rek communication bu ñëwee chaque fois dañuy xool la nga xam ne euh, il faut ñu améliorer ko ci muy évoluer mhm. donc ñuy wax ne pour tout la population structure sanitaire yi daf fi nekk pour yéen ñëw leen si vous avez un problème de santé parce que nee nañu mieux vaut prévenir que guérir yow nga njortu ne sax da nga feebar te feebaroo nga ñëw ci structure bi sax moo gën ngay toog di xaar ba nga xamante ne feebar dikk na macha allah parce que il faut loolu nit ñi xam ko xam ne les structures son la même dans le cadre de la Covid nañu ñëw su fekkee saytu nañu du moom ñu xam ne leneen la ñu war ko jël en charge waaye boo toogee rek daal di ne su may dem ñu ne ma damaa corona ba tax doo war a mën a dem loolu nañ ko bàyyi xel parce que aussi euh, su fekkente ne corona bi dafa jël léegi carte d'identité ne moom dootul gaaw a dem il faut ñu defal ko passeport tamit nag non seulement mu jël carte mais fu nekk mu bëgg fa voyager di dem il faut ñun tamit ñu xool ban stratégie la ñuy adapté pour mun a nekk ak moom. pour mun a vraiment ment di ko jaajëfal man baal ma rek xam naa ne temps bi jeex na. mais c'est une occasion qu'il faudrait pas rater. il vient d'être affecté dafay dem Touba Mar mais il a été un bon collaborateur de la jeunesse un partenaire du conseil de la jeunesse ñu koy mm. souhaiter plein succès ci fonction mm. di ko wan en tout cas la jeunesse de l'arrondissement que j'ai l'honneur de diriger mm. nous avions été très heureux de collaborer avec moom di ñaanal ki ñëwit yàlla na ubbeekoon comme monsieur Mar mm-hmm. Dame Ndiaye ñu bàyyi la nga tàggoo rapidement trente secondes jërëjëf jërëjëf donc di remercier ñi ñuy déglu yëpp je pense que comme ni ma koy faral di waxee rek euh, mbas bi daf ñu jàngal ne war nañu fexe di def le tout pour que ñun ñu mën a di financer suñuy propre politique de santé. Mhm. et que loolu également loolu moo tax a jóg programme bi moom moo tax suñu suñu objectif. mooy ñu fexe ba collectivité territoriale yépp nga xamante ne nii dañ leen a jox wàllum santé comme compétence. Mhm. ñu fexe ñoom it. di mën a appuyer seen poste de santé yi seen district yi. Mm. pour que aujourd'hui problème yi ñuy rencontrer yëpp ñu bañ di ko di ko di ko dajal. macha allah di ñu mm-hmm. doon déglu yëpp. di mm-hmm. remercier également waa. di jégalu ñu ngi euh, am problème wax dëgg yàlla moo tax peut amuñu ay appel mm. mais certainement euh, beneen yoon nit ñi dina mën réagir poser seen i question def ay suggestion euh, di leen jaajëfal wax dëgg yàlla yi ñu teewoon ci plateau bi yëpp waxtaan bi am na solo mm. di yaakaar it ñi doon xamante ni jël nañ ko ci te di dinañ ko jëriñoo lépp loo xamante ni nag la loo xamante ni teguwul euh, ci yoon wala nañ ko waxee du noonu ñi ngi jéggalu bu baax a baax ndax wax euh, dafa metti kon mbokk yi xarit di tey lii la leen seen rajo Afia doon indil seen émission gindeeku ñu si doon ànd ak waa Alliance nationale des jeunes pour la santé de la reproduction et de la planification familiale di leen jaajëfal bu baax a baax si safoo beeg faale bi si rajo Afia di leen jox dig daje beneen yoon allah corona bi léey mooy pandémie mag ak ndaw ñëpp lay dël feebar baa ngi ak li mu nañu ànd xeex ko mu jeex ñu fagaru bu baax a baax ci feebar bi léey ko xeex a xeex a xeex mag ak ndaw toog leen seen kër set